awa yee ko yor waaw waaw awa yee ko yor kenn du yéen ay waay yàlla seen jàmm yàgg ay waay yàlla seen ay waay es ce que xam nga Yacine Pouye bu dee da nga am awo tabarkàlla moom euh, fi la ko lépp fekk awo tabarkàlla temps vache maigre astafurlah temps vache pas encore né sax ci la fi awo nekk tabarkàlla mais ñaareel Yacine Pouye Yacine ñaareel moom dégg nga yàlla na seen Sidi moom da ngaa caga moom Sidi moom da ngaa caga moom lii moom mënoon naa génn ci wayu moom ay série fóon maag raay ma su yóbbu suñu xel ay nit dong la ma ne ko bu dee ay maga a ngi déglu way bi baal leen ma man séeri fóon ma raay ma te ñun ay nit dong déglul li déglul li déglul séeri fóon ma te koy def eh, te yàlla rek tax am na ku may laaj foofu ci eh, biir commentaire yi naan ma Aba kañ ngay commencé di maye xar tabarkàlla eh, garmi yee ngi lay déglu góor yaa ngi lay déglu ah ñi nga xam ni dégg nañ daalee ngi ley déglu ut ma may ay xar rek ma koy maye fii lu ma lu ma am bokk naa ko ak yéen lu ma am bokk naa ko ak yéen dañ man ak yéen danoo bëggante te yàlla rek tax ay ci ana ngañ demba doom yaayu dima ak jibi Diop Baye Fall propre maa ngi lay kontaane Modou Gueye génération future média yooyu tamit maa ngi lay euh, béggee bu baax a baax a baax guy koo bëgg rek mën nga koo may son bi guy damay bëgg yaas par exemple bu ma animé ba yàgg euh, nañu may enregistré nañuy jël euh, sama animation di ko audio di ko envoyé te ñoom ñi bëggante déggal dima na maa ngi imaginer Fall boo nekk woon Sénégal ma ne ko stress mooy ñu rey par kenn kenn stress dina mel ni ci yéen corona ñaanal leen ma ay waay léemu leen ma yaasin dooma wis ndox ajaa si looloo koy rey nday kumba bu ma yàqal sama alando te nag alando bu nu yàqal si di wal ñaf